naafilay weeru koor wi ñu dikk ci guddig juróomeel bi ci téere sëriñ bu Mbacké guddig juróomeel bi sëriñ Souhaïbou Mbacké nee na ñeenti rakk la rakk bu nekk dañ ci jàng faatiya ak àllam nasara ak xulxu wallaahu ñetti yoon ñu dellu siwaat baamtul leen ko guddig juróomeel bi ñeenti rakk la rakk bu nekk ñu jàng ci faatiya àllam nasara xulxu wallaahu ahad lu ci nekk ñu jàng ci ñetti yoon mbokk yi ñu sant leen gërëm leen yàlla yàlla nangu seen i naafila te nangu suñuy jëf ci weeru koor asalaamaaleykum wa rahmatullah ya ayuha alladina amanu kutiba alaykum alsiyamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquuna ayaman maadudat ya xayra dayfin ata bilbishri walmadadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi laa zilta dayfan kariman zairan abadan mukarraman biqira tahaati wasadadi